nañ ba pare ñi ne duñ wujje moom kon ñooñu pare nañu tubaab yi nga xam ne ci benn jabar la ñuy ak borom diine yoo xam ne benn jabar la ñuy yem ñooñu it pare nañu waaw léegi kontel nga ma ñooñu yëpp léegi am na cent trente millions góor yoo xam ne ñi ngi nekk ci biir kaso ci biir àdduna bi waaw ñooñu tal nañ jigéen en passant taluñu kenn cent trente millions de góor wallaay <laughs> am na soixante dix millions de góor ñoo xam ne feebaru xel lañ yor oh, déggoo ma de naa téeméer boo jël ci góor ñi ñett ña borom ñaari tur lañ. ah lu ñuy doyee jigéen. subhanallah. Mm. ah téeméer boo jël juróomi cinq pour cent paasan. ay lan lañu. <laughs> prêtre catholique lañu. ndeysaan ay abbé ki père. seen diine da leen di tayre sëy. Mm. doy na waar. <laughs> lii rek huit la <laughs> lii rek huit pour cent. góor. mais jigéen ñi fan lañ jëm. xaw ma ko mais ñun ñun ñu amagul ah Mouhamed. c'est muñ rek muñ kese. waaye leen ma rek ba pare ñuy bañ ñaareel. loolu loolu ma boole rapport bi. Zerwaat euh, ma ni. ah non ñaareel moom du. pour cent góor. Eh. soo ko xoolee ci jigéen ñi. waaw ñëpp say jege ñaale la ñu ne. sa papa sa nijaay sa càmmiñ. nooy sëy ak ñoom. tu pour cent ci góor ñi ci kaw suuf. Mm. téeméer boo jël fanweer ak juróom yëpp. retraité nañu. am nañu soixante soixante six ans. mais góor amoon góor yaa ngi bàkk suñu kaw. góor ngi bàkk suñu kaw. polygamie daal du solution bi. poly. Ah, bi. nee na ah. polygamie du solution bi solution. solution. nee na du solution polygamie du du solution. ah loolu bu dul solution lu fi solution. ah wax dëgg yàlla. Ah. c'est pas une solution. ah 7 milliards. bii yow moom da ngaa ñu tey. 7 milliards lañ. <laughs> waaw te 2 et demi la ca góor ña am. la ca des yëpp jigéen la. waaw. te imagine li ma la limal fi yëpp te 1 milliard bi moom sëyi nañ am na ñuy jabar 130 millions ci góor ñu ngi ci kaso. léegi luy pexe 70 millions de de góor danoo feebar. feebar lan mooy pexe. luy pexe. xanaa def li diine ji santaane. jël ñaar rek. ah waaw falaate rek. non non c'est que yàlla. Ah, ñeent xanaa. gis nga yàlla li doon contre la polygamie. ah dañu wujjee bi rek. boo wujjeewul dee foofu di nga fa dee. c'est juste pour le décor ah. merci non non c'est pas pour le décor c'est c'est quel ah, pour le décor c'est ah, quoi le problème. pourquoi pour le décor. non non moi je suis contre la polygamie. Bigui. oui Bigui. oui. dégg oui bàyyi lii ngay wax naan c'est pour la décor. <laughs> booy wuy ma. elle elle dit que ni pour la polygamie te day décorer nii rek pour émission bi la mais au fond. c'est que ni non c'est man man bañu ma ah, naa daje ah. ki nga xamante ni daal yeru na mën na ma déggal. lu mun nekk non mën na nekk ndaxte xam nga tamit loolu. Euh, euh. dafa nekk problématique boo xamante ni. jigéen yi ñooy réeranteel seen biir gis nga jigéen ak jigéen bu ñu lëkkaloo. déggoo oh. dañuy mën seen kër. y rien de tel nangu dégg déggoo. Mm-hmm. xam ne nii bagage bi bu bu di nga bëri ay sunguf du rees wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla daal mujjee daal yàlla santaane ci kaw na rafet. asma yàlla bu naree sanctionné góor gu mu rus. waaw xam yàlla xanaa xamoo ñun ni ñuy rusante. waaw noonu la yàlla yenn saa yi di am benn jaamam rus ko. Mm-hmm. yonent yàlla Ibrahima dafa dund dund dund mais comme que xaritu yàlla la. Mm-hmm. yàlla dem na ba am kersa wu rey ko. mu indil ko ay gan yoo xam ne ndeke ay malaaka lañ. ndeysaan. malaaka yooyee ci boppam ñëw toog malaaka du lekk. waaw léegi bi ñu commencé di lekk yàlla def ci malaaka yooyu. Mm-hmm. seen li ñuy lekk yëpp di génn seen bakkan yi seen seen nopp yi diwlin bi di génn ak lekk beeg yàpp bi ñu doon lekk di génn génnaat seen yaram yi. ndeysaan yàlla Ibrahima ni waa moom lan la. Mm. ñu ne ko ah ñun de dañoo am ñaari téeméeri at ak xaw ma lan mu ne kon ku am at yi mel nii kon booy lekk nii nga def mu ne. Mm. man day kon doyal naa yàlla na mu fi borom bi gaaw jëlee kon yàlla nga koy wutal raccourci pour mu fi jógee ëllëg mu ne man maa waxoon borom ndax da koo rus xam nga ko yàlla rus yàllaa ngi rus ay jaamam ci kaw suuf ba nii may wax ak yow borom xam-xam yi nee nañ yàlla bu rusee ab góor waaw bañ koo teg yenn sanction yi xam nga nu mu koy sanctionné waaw benn jabar la koy dénk eh! benn jabar <laughs> mu ne Ahmed Ahmed li nga sanctionné nit benn jabar la lay may. non non bu lay sanctionné laa wax. waaw te bu la rusee bu la rusee. Mm. ba pare bëgg a yëkkati daan lal ko sab ndodd. waaw mm. yow ko góor gi. benn la lay jañax. ñaari jabar dafa neex de. non non non ñaar ñetti ñeenti yooyu. lan la mujjee bi. parce que mën a développé pour nga mën a euh, yegg fenn ci sa àddina. mais léeg-léeg man gis naa kër boo xamante ni Paa Assane. mais Paa yow am nga jabar man xale la amaguma jabar. waaye amaguma. dëggul dëgg waa eh kon yow débat bi waroo caa. débat liñ ci mën a jàngat mooy. waaw euh, jigéen bu yàlla dénk tey nga am boroom kër. boo déggee li gën ci mooy nga gën a sëy parce que tey am nga loo xamante ne amaana yeneen jigéen ñu ngi ko bëgg amuñu ko donc jigéen nekk ci. tey nga mën a xajal ñeneen ñi bu ñu bëggee ñëw nga uuf leen. def leen ak bañ a rey. Ahmed wax ni c'est un lii c'est grave. waaw. Euh, moom laay tàggatoo nag te man moom bu may bu génn plateau duma ma tàggoo <laughs> bu yeboo réalisateur yi armé wu. waaw ba dégg la benn. waaw asma ndaw si bu feebaree nga xaar. bu tukkee nga xaar. Mm-hmm. bu seetijee ndeyam nga xaar. bu seetijee baayam nga xaar. bu gisee mbaax nga xaar. Mm-hmm. bu la meree nga xaar. te bu kiyee <laughs> man daal polygamie moom fii ba suba du ma ci ànd. ba suba mu nekkoon Ahmed Aidara ci li gën a fës ci boppu yéen kay mu amoon solo lool góor dafa manqué ñi nga xamante ni dañoo am ba pare nañ bokk rek. moo tax jiir yi dañu war a neexal góor yi de. waaw neex toppatoo ayu ñun aussi dañu war a neexal jigéen ñi ah. man Matar mi gis nga. ah mais sérieusement tey bopp bi day non mais xale la euh, maa ngi nuyu euh, Moussa Diaw sama grand nee kontaan ci yow. par rapport ni nga kii grand Moussa. Asma kontaan ci yow ah? yéen a doy waar. yéen yéen doy waar. yéen balaa ngeen di am lu leen neex toog ci kër gi jaasi yeeg paaka yi di naaw ñaari jeg gi di confronter di sàjj ku ne di jam sa morom. mais loolu bigi sunguf du rees. ça dépend rek mais mais bigi ça dépend gis nga kilifteef <laughs> boo ñëwee xam na ni kii nga xamal ko xam nga lan mooy indi yooyu góor gi buy doxaan keneen de yàq euh, ki mu njëkk am ca kër ga ah, mais bu fekkee ni da nga wormaal ka njëkk nekk ca kër ga hmm. te nga soulager sa conscience ci labat keneen bi ngay labat xam na ni hmm. sa diine moo la ko may ku ñeewul sa du la man ku ma ñeewul sa aawo ma la sëyala maam euh, ko waxtaane ci kanam waaw mi ngi noonu Mantoulaye waxtaane ko mi ngi noonu ma di leen jaajëfal bu baax a baax Bigui ta participation et ta contribution est très importante tey moom nga ñëw rek di contrecarrer et un joyeux anniversaire à Ouz Magique Dakar Ouz VIP macha allah ak ak ak ah. ah. dama koy defal euh, dama ko bëggoon tëjee rek musique bu neex waa defal ko lu neex lu hmm. nice Mouhamed ma di la jaajëfal di la gërëm euh, ça a été un réel plaisir ah di partagé di di dama leen di namm nag souvent di la jox di daje samedi incha allah incha allah voilà allez merci voilà donc euh, Yaayu Ahmed waaw c'était un plaisir toujours un plaisir de partager le plateau avec vous on se donne rendez-vous samedi incha allah macha allah Paasaan ma di saxal si jàmm. ak xéwal jàmm gis nga ni mu neexee. dafa neex yàlla yàlla saxal nu si. am na ko nay neex rek. nay neex rek macha allah ñu di leen jaajëfal yéen internet yi yéen téléspectateurs yi euh, di jaajëf ñi nga xamante ni Côte d'Ivoire lañ dëkk Congo Kinshasa waa Mali ñoo ngi gis seen ay euh, participation contribution ak seen adoption émission bi waa Gabon tamit kenn du leen bàyyi ginnaaw euh, benn yoon ki nga xamante ni nag mooy Mass Mboup bu Zik FM ñoo ngi koy souhaité happy birthday voilà. voilà donc ci noonu lañ lay ñaanal yàlla fan mu gudd wér gi yaram xéwal bu saawan baawan la ca des nag sa biir xol la nekk yaa ko xam yàlla na la ko suñu borom def xal te mu gën ci yow euh, ci noon nag charmant téléspectateur ma bàyyi leen rek ak ki nga xamante ne mooy Mantoulaye ci waxtaane ko mu indi leen yeneen thème gën leen ko faram fàcceel nous on vous retrouve demain à partir de 8h30 bye bye.